Mouride TV point com ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziare comme ni ñu koy defee temps yëpp rek jëm le 9 juin incha allahu rabbi mercredi 9 juin ci arène nationale ànd ci ak waa Vox Arena ñu ñëw ci nga xamante ne wala boog journée bi nga xamante ne 5 yaakaar naa dañ ko tuddee 5 grands combats kii nag war a bëri ci bés boobu noonu di Garga 2 ñu gëj ko gis loolu yaakaar naa depuis combat ak Tyson numéro 2 moo tax nag ñu ñëw fii écurie mu jógee écurie ñëwaat ci benn écurie waaye lépp nekk parcelle. ñu ñëw gis ko ak ay entraîneur am gis ko tamit ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay nawle mbërëm ñu fas yéene waxtaan ak moom ci combat bi mu jëm le 9 juin digganteem ak Mama Lamine ci tarkindaa yi nag la dëgg dañ ko nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yëpp ñu ak moom Garga 2 maa ngi lay nuyu la ziar. waaw ange billahi mina shaytan rajim bismillahi rahmani rahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñu ngi ñaanal suñu ñaari waajur du leen ñaanal yàlla leen suñu borom yërëm te xaar leen ci àjjana firdawsi ak mboolem jullit Lamine ñu ngi lay fay di nuyu waa Lutte point com yëpp di nuyu waa Kivos yi nga xam ne ñoo tëgg lamb yi le 9 juin di nuyu mbokk amateurs yi mu wax axlu lamb yëpp maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sant di nuyu fi nga ma fekk muy écrit jàmbaar Wrestling Academy maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam. yaa ngi nuyu ñëpp ñëpp ñu ngi lay fay kañ nga gëjoon bëri 2016 wala la 4 avril 2017. avril ba 2021 lan moo tax lool. non du woon ci man nag de lu ci ëpp nag adversaire yi ñoo doon taamu affaire yooyu te tamit naa ak ndogal suñu borom tamit quoi waaw. adversaire ñoo doon taam wala yow yaa doon taam. adversaire tamit doon nga taam non taamu ma parce que ñi ma waroon bëree rek laa doon laaj. Mhm. man gisoo ma laaj képp ko kenn koo xam mhm. de. ni ma quoi boobu ba aussi quoi. Mhm. yàlla dogal na nga am combat sa diggante ak Mama Lamine. Mhm. yaakaar naa ne promoteurs yi bëggoon combat boobu bari na. Mhm. avant Vox Arena waaw waa waa Vox Arena avant ñuy taxawal combat ñoo la woo pour na nag waaw woon na lu ñaar ba ñett woon nañ ma waaye yàlla dogal na ni waa Vox Arena ñoo ko mujj taxawal. première fois bi ñu la woowee est-ce que bañoo woon. non bañu ma woon dañoo amoon problème mu rek waaw. mais dem nga ba xam ne combat la bi la promoteur yu bari di woo. non ban moo njëkkee woo wax ma nekkuma fi kii parce que xam naa ne tamit def na mu ngi woon ci ay preuve yoo xam na mu jël ko mhm. nga ko xam nga ko bu baax. ma xam ci moom de. loo xam ci. xam naa ne ndaanaan la champion la aussi. Mhm. comme mu ngi bëree di daan li ñu ñaan yàlla rek ñu ci yàlla yóbbu ak jàmm yàlla may ci ndam ci ko jël ba pare ni champion la wala avant nga koy jël xam nga ni kii champion. xam naa ne champion la xam nga mbër aussi mënul nekk di bëree di daan nga naan kii du champion loolu. mënoo ah, kenn xel xam am nag mu ngi bëree di daan. fii yaa ngi bëree di daan champion nga mu nga làmb ji loolu moo fi nekk. Mhm. ki bëree da di daanu kenn du ko wax champion. Mhm. comprendre nga même bu fekkente ni mën na bëree sax da ngay xam ne kii mu ngi daanu waaye ki nga xam ne day nekk di def ay preuve am mënoo ko wax ne cuune la wala dara. ci ci ci ci ban combat am wala ci yan combat am nga xam ne kii mbër dëgg la. seetaan naa combat mi bëri ah ak euh, booy bawol bi. nu mu tudd Kewal non pas Kewal. Buur Sine. Buur beneen booy bi. kan la ci. man boobu laa lamb jooju stade la ma fekk. ma koy seetaan boobu laa commencé xam ñun ma lamsaar la nekk affaire mhm. ci laa commencé suivre yeneen combat yëpp nag seetaan naa moo ko. Mhm. moo euh, booy euh, bi kii nu mu tëddee Kër ñoom yëpp seetaan naa leen. Mhm. seetaan nga ko ñu jox la ko. waaw biñ la joxe adversaire bi. nga ne kii mooy ki ma doon seetaan. nan nga doon entraîner combat bi nan nga doon entraîner par rapport ak ay qualité moom. waaw xam nga man damaa nekk ci ay loxo damay ñëw rek ñun ma defal nangam defal nangam defal nangam gis nga bi ma ñëwee fii dal naa ma lii ngay def lii ngay def rek ma def loolu. Mhm. amul leneen lu may wax ko mais danañ la liggéey danañ la liggéeyloo ci say qualité adversaire xëy na. waaw ñu ngi ci quoi ñu ngi ciy liggéey xam nga am na loo xam te ne coach yi ñoom ñoo koy jël denc ko. Hmm. mu ne ba làmb ja ñu wane ko liñ hmm. ngeen gën a xam ci moom. soo ko waxul ma wax ko parce li muy bëre ñëpp teg nañ ci seen. waaw léegi waxal ñu waxal ñu déglu. non man kay waxal rek. yow xam nga adversaire bi ku nekk xam na li muy bëre. waaw day xeex day bëre. Hmm. comprendre nga garga de aussi du gan ci làmb quoi bu yàlla dogalee nga dem ba bëreeg adversaire li nga xam ne moom nga war a bëreeg adversaire bi loolu da nga koy denc ba làmb ja nga def. dóor song lay def dóor song. waaw loolu xam nañ ko. dina xeex xeex bu intense. dina bëre. waaw waaw moo tax combat bi ma ne damay xeex dañuy bëre. damay bëre kon laaj na combat bi laaj na rapidité amateur yi daal li ñu leen di wax mooy. waaw nañ ñëw seetaan làmb ji dina xam ne làmb ji dina neex. waaw ñun surtout làmb ji la. waaw amateur yi ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp. parce que bis bi mu tombé la ak làmb ji ni mu xatee jël mercredi. Mhm. comprendre nga. te bésu làmb la sax bésu làmb la li ñu bëgg mooy amateur yëpp ñëw wuy suñu. Mhm. parce que làmb ji la boo xamante ne mënut a yomb làmb ju neex la parce que retour Garga 2 xam nga. mënut mhm. a yomb quoi. wax ko sànq man la day mhm. ñu doon gis mën nañ ko gisaat. waaw ñu ngi di gis lu ko raw sax incha allah rabi yëg naa sama bopp loo xamante ne gëj naa ko yëg wax dëgg yàlla. parce doon nañ gis say combat da ngay teg teggi. boo jàppee balaa ngaa bàyyi loolu loolu sama domaine la loolu yàlla moo ko def ci man don la ci man quoi. Hmm. du loo xam ne dama koy nekk di làmbatu wala dara man su ma takkoon bët sax su ma xasee ba jàpp xam naa lu ma war a def. kon Mama ko ba nga jàpp ko. non dañuy bëree jàpp ak xeex a ci yam dañuy bëree dañuy bëree xeex parce que combat ku la wax ni la yomb. wax loolu am xeex bi que na parce que nag. <laughs> ñeme na xeex ah, na ko mu xeex comprendre nga te man it bul fàtte ni bëree naa ak ay xeexkat. waaw ah, mais moom dafa bëgg xeex. xam nga booy bëri ku bëgg xeex ba dàq xeex doomu daangu wala gën a bëgg xeex doomu daangu wala seenteel magam ñoom ñëpp dañoo mën a xeex. Hmm. comprendre nga bi ma lam boole ñoom dama leen maîtriser ci xeex bi bu def ak ñoom li ma bëgg. waaw ah, mais ku xeex ak ñaar loxo nag parce que moom ah, loolu laa bëgg mu def ko bu bis ba incha allah li mu doon indee bu mu ci bàyyi dara. man mi nga bëgg Mama Lamine bu pare ah da ngaa bëgg a jàkkaarloog Mama Lamine bu pare. waaw Mama Lamine da ngaa bëgg a wane sa bopp dama bëgg mu wane ni Mama Lamine doon ñëw ñëw na loolu laa bëgg. ñu hmm. xam ni Garga 2 mi du Mama Lamine incha allah rabi moo koy téye dem. maanaam lay ngay bañ lay. ma xam nga làmb lay mënatu fee am ndax làmb boo xam te ne dafa taxaw boobu ba léegi bu yàgg ba léegi lay mënul am muy man muy moom. comprends nga li ni ñaan rek yàlla defal ko wér defal ma wér ba bis ba incha yàlla may ma ndam ci kawam. Hmm. ngay bëri moom ñëpp ëpp ci moom yaakaar waaw xam nga ñi nga làmb dafa am lu ci xew. mooy hmm. làmb xamuñu maanaam mbër bu mën a bëre. maanaam mbër bu neex la rek lan xam senegal Sénégal. comprendre nga. ku nekk ci dynamique. waaw ñoom loolu rek lan xam. waaye man xam naa sama bopp xam naa man maay kan. loolu mooy l'essentiel bi quoi. waaw am na lu mu la waxoon yaakaar naa ndax ku ne xam na ne da ngay jàppale caxabal ñi nga caxabal wéeru leen ñu ñu jaaxaan nee na nag bis boo ko jéemee caxabal mu dagg mu damm sa tànk. waaw lan xam nga li may wax rek mooy yàlla nañ ci yàlla yóbbu. maa suwa lu bari day damm de. comprendre nga ñaan rek mooy yàlla yóbbu ñu ci làmb jeek jàmm ñu fekkee te tal boobu bis bi jot Mama Lamine moom mënul xam lan laay bëree ak moom. ah mënu ko xam Mama Lamine di borom ak ne ànd ak ay eh, borom xam-xam. waaw ah, yàlla nañ ci yàlla ma margan nekk fi. moo la gën a. mu ànd ak tarkindaay moo la gën a xam ne. waaw mu demee ci bëre rek. waaw bu naxul ay xam ne ne bu ñu bëree rek musiba am yaa ko dàq bëre. bokkuñu sax. luy lool luy bokkuñu. qualité bëre yi bokkul. mën na bëre ko ëpp bëre. waaw suñu bëre bokkul. mën na bëre quoi. Hmm. waaye suñuy façon bëre bokkul. maanaam kon lutte pure mu amu ci sens. lutte pure rek xeex beeg lépp li may ñaan yàlla ji mooy buñ ci yàlla yóbboog jàmm incha allah rabbi parcelle gépp génn mobiliser wu ngemb ma dar ma ma dem yóbbu bëre jeeg maama Lamine est-ce que da ngay dégg li naan yaa ko ëpp doole est doole euh, Mame nga làmb góor góor ëppante wuñ doole góor yëpp nag. muy muy yow ak man yow tey jii su ma ñëwoon bëggoon eh, naa jaay doole tey jii. Eh, du sotti ah, waaw daam seen am na lu mu ko def. comprendre nga da ko doon jaay ma la bëggoon su ma la bëggoon ñëw jaay la doole. du sotti combat bee nekk def loolu daam làmb kenn mënul jaay doole kenn dara. comprendre te neexu ko liggéey na loo xam ne leer na ni buñ ko jàppee lu bëgg a def den ko def loolu mooy l'essentiel bi. maanaam yow bu ko ba liggéey nga ba sentir sa bopp que ni yow yaay diriger. lu ma bëgg def loolu laa koy def incha allahu rabi. am na loolu la Siteu yóbbante woon nag yaa ngi Papa mu ne. nee ñoom ay njool yu yëgul ndaama leen te yéen ay ndaamay gosaas. ay ndaamay yëgul njool lan. mais ay ndaamay gosaas ngeen. non ñun ay ndaamay ndax ñoom su deewul ma lu tax ñuy wax. Ah. maama leen bu ma taxawee mu taxaw su deewul ma lu ma dix centimètres. dix centimètres daa bëri na. non dama lay jox exemple kon ah. sutuma mbëre door fii gars yi su doon teewoon de. Hmm. waaw. Gosaas moom kay yóbbu na leen ba Gosaas sax bàyyi leen fi ci guye li li ñuy ñaan daal mooy yàlla ñu yàlla yóbbu ci làmb ji te fekke ko te tal ko. Hmm. waaw dinañ gis beneen Garga 2 incha allah. dinañ gis jot na tamit ñu gis beneen Garga 2 comme ni nga ko waxee. Hmm. côté ambiance. lan nga Garga 2 nar non man ku ma xam-xam ne man damay ambiance. fàtte woo man. quatre ans d'absence. <laughs> man li may nekk man doomu ñeeño laa li nekk ci man ci man la nekk. comprendre nga di woo sama mbokk ñeeño yëpp di leen wax ne ñëw jàppale seen doom seen rakk. dafa am bu mag. ak a mën a fee ci mbaam comprendre nga ñu ñëw jàppale leen yàlla defal ñu ndam ci combat di woo sama mbokk kajoor kajoor yi waa Ndande Fall. waaw dégg nga leen ah? woo. dégg nga leen woo. waaw ci boog bisimilah. li ma li ma bëgg a xam buñ la buñ la buñ la laajoon looy moytu ci Mamadou Lamine du ñàkk adversaire nga xam ni lii war naa ko moytu ci moom lan lay doon. man na wax dëgg yàlla aw ma aw ma lenn lu may calculer ci Maama Lamine su dee dëgg rek laa bëgg a. moytu woo ci moom dara billaahi aw ma lu ma ci moytu. moytu woo mu dóor la moytu daf maa dàqu te xeex ba may xam nga tey ki nga naan ki ngay dóor ki ngay moytu ci moom dara mooy da ngay sóoraale ci moom pour dara. Maama Lamine su ma demee ba am lu may sóoraale jarul man may takk ngeen di dem bëre ji. làmb na nag. maanaam moytu woo daal moytu woo dara ku nekk di nga waaj mobilisation lan lañ mën a xaar ci. ci Garga moom bëgg naa def mobilisation bu am doole. parce que jour ba tamit. yaag sa doomu ndey yéen a ciy bëre. Franc parcelle kon dañu war a jóg. non moo tax ma ne waa parcelle yëpp nañu jóg. waa Cité Fadia gi nga xam ne fa laa dëkk ah unité 3 unité 4 unité 1 unité golf sud xam nga unité 6 parcelle 1 ba 26 ñu ngi woo ñëpp di leen wax ni seen doom ñoo xewle parce que su ma nee Garga rek a xewle dafay mel ni man rek maa Garga da ciy bëri te loolu na ci ñëpp na ci ñëpp ñëw jàpp xam nga ñu mobiliser wu ñu bëree daan indi ñaari ndam yëpp parcelle incha allah Franc am na bés de. Franc am na bis waaye li ñu koy ñaan rek yàlla defal ko ndam. ki mu bëreel daan na la daan góor a soog. Mhm. moo tax ñu ñaan combat bi mu mujjee dugg parcelle tey. Franc de démb nee na ma nee na ma làmb ci dàq bëri. ah nee na yow yaa ci làmb ji. non day wax rek xam nga moom ngi def ay am champion la dafa ñàkk ñàkk iñaan rek képp ta franc guddi ñu toll nii amul kenn ku ko dàq bëre ci làmb ji parce mu ngi def ay preuve mu ngi ñëw ci bëre simple di bëre di daan. Mhm. di jël ay tournoi li ñu ñaan rek yàlla lafal ko cat mu eggaleeg sagoom. Mhm. waaw nit ñi am nañ ci moom yaakaar parcelle am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax. nga jóge écurie Dóor Dóoraat ñëw écurie jàmbaar lan moo waral kii bi. non xam nga écurie yëpp benn la comprendre nga am na ci loo xam te ni mu ngi mel ni ma tey nit nag am nga droit def sa mhm. am nga droit toog ba ci ak xool ni ah gëj ngaa bëre kat teguwaat ci ay loxo pour defaraat sa carrière. Mhm. loolu moo waral tey jii ñu dem jógee Dóor Dóoraat dem fii waaye génn ñu parcelle ba tey. yéen lépp parcelle la. lépp parcelle mais yaa ngi gis sa bopp ci jàmbar waaw ñu ngi gis suñu bopp bu baax a baax nan la demee. non macha allah di nuyu coach yi fi nekk yëpp ay coach su Suka coach su Lato xam nga coach su Balla Diouf coach su Serigne Ndiaye xam nga ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla defal jàmm musal leen ci ah. ak euh, laay ñombar aussi di nuyu nag président bi bu baax père per ba ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm ak njabootam yëpp parce que gis na ni muy sonnee ci écurie bi waxuma la ak écurie bi parcelle rek ni mu leen di sonnee. Hmm. di ñaanal tamit Papa Sow sunu mag. wax dëgg yàlla gis naa ni ñuy taxawoo xam nga. Um, tee na leen. non daf ñoo def comme ay yu mbokkal ndey baay li ñu koy ñaan rek yàlla defal ko cat. combat bii mu jëm yàlla defal ko ci ndam bu sedd guy. ba amul benn Papa mi nga doon gis. waaw ah. parcelle. Hmm. mu nekkoon sa dëkkandoo parcelle. Hmm. ak bi nga gis bi ngeen demee ba am ay relation bi ngeen gëmee ba gën a jege ban différence la am. Papa Sow nag naka jekk nu mus nañoo am loolu mus am jàmm même bi mu nekk Fass ndax fu ñu ko fekk fu ñu doxoon ba daje dañuy nuyonte seq jàmm waaye bi ma ko miinee ci laa gën a xam jikkoom maanaam li ma foogoon ci moom li ma gis ci moom moo ko fuuf. Mm-hmm. duñ koy ñaan rek yàlla lafal ko cat mu yeggaleeg sagoom tamit suñu borom defal ko jàmm ci njabootam ak ay soxnaam yëpp yàlla may leen wér. ak gudd fan naan loolu la ñuy looy mujjee yónnee sa adversaire. waaw di ko wax na waaj rek na waaj ànd ak ay mbokkam ñu ne ñu waaj ànd ak suñu mbokk. bala neuf incha allah yàlla may ñu ndam. waa looy xanaa di sant nag ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ku ci mel ni sama grand sa dex baabu Xaadim Touré Cheikh Fidior ah Aline Mbeng mi ah sama boy waa 15 ans yi xam nga waa Daara ji maa ngi leen di sant bu baax di nuyu tamit Baara Café xam nga waa Sas di leen wax nañ mobiliser bu baax. parce que combat bi seen combat la xam nga disco loolu sa loxo laa koy bàyyi ñu mobiliser bu baax di nuyu tamit waa Feeraay sama booy yooyu nekk foofu waaye Indeg 4 ah ñoom ñoom ñoom uh, nu mu tuddati bi jëf-jël bi ndonga daara ñu ngi koy woo di wax ah di nuyu tamit mu Moustapha Moustapha suñu booy la waaye dafa dafa sonn ci Cité Fadia ñun tam ñu ngay wax ci combat mu jàpp ci bu baax a baax. xam nga di woo Ameth Wade bu baax a wax waaw Modou aussi ñu ngi koy sant bu baax di sant sama grand Silla maa ngi koy sant bu baax a baax dafa ma gis rek xoolal bëggal ma boppam te xoolal ci entraînement rek lan kii di ma jàppale te yàlla rek tax wax dëgg yàlla gis naa taxawaayam ci moom maa ngi koy sant bu baax moog doomu ndeyam Abdou Cissé ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu Jamaïcain tamit gis naa taxawaayam ci ñun xam nga di nuyu waa parcelle yëpp di nuyu nag Aline Mbengue bu baax a baax sama waa kër maa ngi leen di sant bu baax a baax waa Cité Fadia di sant sama bàjjen maam say Seck di ko ñaanal yàlla na ko fi yàlla bàyyi xam nga Birame Thiam xam nga di nuyu waa Touba sama doom bàyyi nekk foof di nuyu sama magu papa yi nga xam ne ñoo nekk ndànd yëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla guddal seen fan waa ginnaaw raay waa Dalifor xam nga waa Maris ma kenn di wax na nit ñëpp ñëw jàpp di woo sama mbokku ñeeño yi di wax uude yi nekk Medina tamit combat seen combat na ci ñëpp jàpp. Ramdan xaalis bu bari la ma yónnee ci combat bi. xam nga eh, moo yey de. wax dëgg yàlla yëpp lay lay non sama waay la xam nga moom bu ko neexoon ni bàyyi na rek. du mhm. du du ñu na ma xaalis bu bari ci combat bi ñu koy ñaanal yàlla defal ko jàmm. ñoom jëf jël xam nga ñoom Baye Pël. du nuyu dem ba États-Unis Cincinnati du nuyu Awa Ndiaga ak jëkkëram xam nga ab Gaynde maa ngi koy nuyu bu baax ak Vieux saw ñoom ñëpp maa ngi leen di sant bu baax gis naa seen taxawaay ci man xam nga. Mhm. du nuyu waa Italie ñoom Mbaye Fadia ñoom Cartouche ah. Cartouche. sama doomu ndey waaw France la nekk moom Marseille quoi moom ak doomu ndeyam ñoom Thié ñoom Mbaye Fadiaga gars yëpp ñu ngi foofu. ñëw di nuyu Jules Ba depuis Italie Milan ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ci combat bi combat bi dama bëgg na ci ñëpp jàpp. Garga baax a baax. di nuyu sama gars nag ñoom Ibou xam nga sama gars yëpp di leen wax ni combat bi seen combat na ci ñëpp jàpp. Mhm. Ibrahima tamit Khalilou Laye interview maa ngi koy nuyu ah di nuyu gaa daal maa ngi ziar da ngay da doo man waaye maa di gërëm ñëpp. di nuyu sama waa kër Gorée tamit quoi Dabaye Baar. Dabaye Baar combat sa combat la ma bëgg nga jàpp ci bu baax. chéri Arma. yaay Rasoul combat bi combat am la ma bëgg mu jàpp ci bu baax a baax. d'accord waaw na ci ñëpp jàpp daal. incha allah jaajëf merci beaucoup. rendez-vous. le 9 woo ñëpp. jaajëf